<laughs> waaw Bougar Bougar est-ce que est-ce que làmb simple mën nañ ko def yëkkuloo. waaw maa ngi lay ziar sëñ Jili di nuy sëñ Bas di nuyu waa Sénégal xam nga rawatina internetu wasaare làmb yëpp waaw ni nga ko waxee rek làmb moom ak wiikuloo maanaam Sénégal xamuñu ko. parce que wiikuloo boo gisee maanaam mu ngi am si si si ay sport.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 xam nga ba ba ci ba ci ba président écurie ni siy gis seen bopp dafa bëri kon yaakaar naa tey président war na si mën a dugal loo xam tey football tey fi mu yegsi tey boo xamante ni tey nit ñi dañ ko prôné valoriser ko ba mu yegsi fi mu yegsi noonu kon pourquoi pas tey ñu valoriser lamb tey ba lamb génn te Sénégal tey fu ñu ko gën a dégg fu mu gën a ràññeekoo tey à part 2002 tey tour Sénégal tey ci lamb la muy lutte olympique ak leneen ak leneen depuis parce que bu ñu demoon tey ba làmb ñu ne nañuy dindi photo mbër yi ñuy def si kay yi mbër yi bu te si école yi ak yeneen ak yeneen tey te ku ciy dem campagne tey woo parce que da nga jàpp ne kii il est influent kon ça veut dire que dañuy naxante rek bu kaddu yi amee lu ñu tamit li naan dëgg du neex mais maanaam lamb moom dama gis ne Sénégal fi mu toll nii tey maanaam dañ ko xaw a délaissé dañ ko resté en rade par rapport ak yeneen activité